ñoo xam ne bàyyi tuddaguñu actualité parce que tam euh, dafa ànd ak réew mi tey ñu dégg coow li ak vidéo yi fuite Wally Seck mariage ni dafay bàyyi way dafay woyati yow mi nga xam ne jege nga mariage ni noo jàngatee loolu ak leen suuf si ngeen ci mën a jox waaw Fadel jërëjëf coow li coow li bar gars yi baal leen baal leen ngeen may ngi tuut ñu yeggali gars yi dañ nekk entretien tubaab boobu ñu may ñu yeggali euh, loolu am na solo mhm. macha allah Euh, loo ma laajal léegi Fadel. dama ne la sax ñoo wax ba bàyyi ginnaaw dugg nga ci fiiw sa digganteeg dégg ak liñ ko ñaanal ak kàddu seede yi ak ni nga formé dégg ba ku gis dégg gis omoro loolu dootul lu muy ñuy lamlaamee waaye actualité faaw ñu laal ci ku ne xam sa digganteeg mariage coow li bari waale day bàyyi way waale dootul wayati yow mi nga xam ne jege nga waale bu ma waale amee doon bor tey su ma la gisee nga fay ma ko loolu ci lay leeral. waaw mbir mi nag euh, Fadel li ma ci indi ci ay leeral rek mooy ab coxoo am na. li war a la ab coxo am na mooy euh, yëf yi jaxasoo na ndax barki démb dama toog ci télévision bi ma def allusion allusion nag boo ko déggee mooy lu leerul loo yaakaar ma toog ma ne ah man day wax dëgg yàlla projet yi ma gët a gis ak li ma gët a dégg sama yaakaar lim ma jox ak sama njort njortu laa waxee te kii waxee njortu taxawul ci lu leer benn ñaareel ba dama am droit taxawee ci mën a taxaw ci lu ñàkk leer en tant que fans parce que dama koy wax toujours nit ñi bu ñu fàtt ni ñun dañu nekk ay fans président Wally Ballago Seck ba pare doog a doon ay ministre am bokk ci gouvernement am di ko liggéeyal yor kàddoom dañu ñaari mbubb jëmmam léeg nag émotion dañuy jàpp ñu simmi mbubb porte bi daal di taxaw ci mbubbu fans bi wax suñu yëg-yëg kon ni ko Fadel di yëgee ni ko Modou di yëgee ni ko Aïcha Demba Faama ñi ko bëgg ni ñu ko yëgee man man kat li ma yëg man présentement yi ma am jàpp naa ne président day bàyyi. coolu na kur yëf yi mel ne mbàccum gerte mànd gi dagg lu ne sénégalais di ko wax lu ne faramaareen di ko wax lu nit ñi di ko wax nit ñi jaxasoo ci diggante bi liñ ma fi woo ci ay doomu aadama yi entré hôpital kenn xamul nu mu toll. ci diggante bi liñ ma fi woo ci ay nit ñoo xam ne grève de la faim lañ def boobu ak léegi kër xamul nu mu ci diggante bi liñ ma fi woo ci ay nit yoo xam ne doorante nañ ci ay kurpañ nit jël ku jox morom ba keneen jël ku delloo ko ñu roofoo xeex xeex wi tàng jër ngir lan ñii neneen day bàyyi ñii neneen du bàyyi man nag fa may ñëwee mooy mbirum bàyyi ak ñàkk bàyyi comme jur na ay polémique jur ay coow ba nu ngi di ci dóorante di ci reyante man li ma gis mooy son excellence président Waly Ballago Seck même bu dee benn vidéo bu 30 secondes na ko génn mu defal ko sénégalais nuyu leen massawu leen ci lii ñuy dund ci ay jafe-jafe ndax nag Fadel situation bii dama ci tiit nañ ma may foofu nañ ma may tuuti ma yeggali situation bi dama ci tiit Fadel. lu tax nga tiit. yëgalal weer yi. lu tax nga tiit ma tiit ci situation bi mooy président Macky daa defoon lii Fadel yaa ngi may dégg. yow laay dégg. président Macky Sall daa defoon lu nu mel. ndax kat dafa bàyyi sénégalais yi ci njiixi njaaxa ñii naan troisième mandat dina am ñii naan troisième mandat du am marche yi taqarnaase nit ñu wàcc ci mbedd mi taalip na gendarme yi jug daj seen kaw ñu xeex ci seen biir bàyyi bakkan daanu mu bàyyi ba dara desul lu dul fa mu war a yeewee doomu aadama yi mu ñëw na bokkutuma bi muy wax bokkutuma fekk na béy woy muus ah loolu laay bañ mu dal sama waa ji li dal président Macky Sall ci troisième mandat mu bàyyi ba nit ñi reyante ba jeex tàkk mu doog indi ay leeral loolu laay bañ mu dal suma président Waly Ballago Seck. mais bi ngay wax Omaro ci loo ko tegoon ci gaje a dégg Waly mu wax ci wàllu musique wala wala gisatoo contrat wala ci loo ko tegoon. waaw fi ma ko teg mooy ci fan se woo xam ne lim gis xelam dalu ci. lan nga gis lan nga gis. li ma gis mooy ki nga xam ne tey dama ko daan gis di ci moom cawarte ci wàllu bëgg way di gis ci moom cawarte ci wàllu spectacle di gis ci moom cawarte ci wàllu liggéey bi. dama mel ni ku dem ba yàgg ma gis ci moom découragement dem ba yàgg ma gis ci moom li nga xam ne mooy mel ni kuy bëgg du àdduna kuy bëgg dëgmal yàlla kuy bëgg bàyyi caaxaan yi ñu nekkee woon ak foogeeg kaf geeg reeg looloo tax ma taxaw ne man en tant que fan li ma gis sama xel dalu ci. mais Fadel dama la wax wax ju solo ay bakkan dafa rot ay nit dee ñu xuloo xeex ay say tas ndax troisième mandat lu nu mel nag moo may xeeñaat ci wàll dana bàyyi way ak du bàyyaat. bu ñu bañee nag mbir mi yegg foofu dama bëgg son excellence président Wally Ballago Seck ñaar responsabilité mooy am benn bi moom moo koy jëlal boppam benn bi man maa koy jëlal sama bopp en tant que porte parole man en tan que porte parole Fadel dinaa woote dialogue. dialogue lan naa réservé King Fahd Palace le huit mars. Fadel li ma la wax doy ca dem naa réservé King Fahd Palace pour le 8 mars dinaa woote dialogue woo réew mi. mais boo woo dialogue woo. mais ñan laa dul woo les hommes de culture. tey su ma wootee dialogue damay njëkkee ci ministre de la culture waaye njëkkee ci directeur SODAV directeur Grand Théâtre studio yi nekk ci réew mi studio presse art day ñëw damay woo Ngone Ndour mu ñëw teew ndax mbir mi day fu mu toll foo xam ne foo jaar ñi nekk au pouvoir ak ñi nekk opposition daja waxtaan te mbir mi foofu la yegg Matar Diop suba teel dama koy woo damay woo Mame Cheikh mbay jëri Ngone production damay woo Lamp woo Papis Konaté wooy jëre jëre Bakal sek woo bépp studio boo xam ne mi ngi ci réew mi di doxal wàllu culture ak wàllu showbiz fii ci Sénégal ak producteurs yi ak les hommes de musique ñu ñëw toog ñu waxtaan woo ay kilifa waal yi ku ci mel ni ñoom PDG Doro Gueye ku ci mel ni ñoom président Mamour Yatta Saay ay yaayam ñoom maire Aïda Saliou ñoom maire euh, Amital Tamba ñoom maire Khady Cissé Mali maire yi ñëw toog ak paa yi ak ñi xam ne ñooy ay kilifam euh, responsable ki nga xam ne mooy njaga euro manager am ñëw toog ñu def dialogue ñu waxtaan Fadel Sénégal il faut dialogue am. mais mais Omar est-ce que teelul parce que boo xoolee bi yaayam tëddoog léegi amagul ñeent fukk guddi. faaw ma stressé wu pour mu a casé wu. mais c'est normal est-ce que dëgg la. casé wu dëgg la repos dëgg la waaye nag rëppo ak baay bokkul. mais da ngay gis ñu repos bi def cee boole di naafile wala di werd wala la. nit man naa repos waaye rëppo boo xam ne day xeeñu baay daa ëpp def moo tax ma woote dialogue te woote naa ko le 8 mars ci King Fahd ndax man nag damaa jaaxle Fadel waaye léegi foo fekk mu ngay julli. foo fekk waale mi ngi yor kurus ci loxam di fekk waale mi ngi durus xas de si day ñaanal waajuram mais yow gis nga interview bi waale def tey ci suba interview bi Baye Sall génnee tey ci suba waale ak Baye Sall di ci waxtaan baat ak tontu bu waale waxee Baye Sall di critiquer mais ay ay alxuraan rek la waale loolu wax ah, mais peut-être dafa dafay ñaanal dafay ñaanal waajuram comme amagul ñeent ak di wax ci xam-xamu maarifatu di wax ci wàllu li nëbboog li feeñ waaw di wax ci wàllu li nëbboog di feeñ ba yegg ci ne kat je suis Ibrahima am naa Ibrahima waale lan la nar Fadel Waly waxul lum nar waale lan la nar bi ma gisee interview bi nag alaaji Medoune yëkkati naa sama téléphone woo ko ba sonn jëlu ma ma woo monsieur le ministre Youssou Dieng ma ne ko Youssou mu ne ma naam man a ko ànd président mu ne ma Omaro ma ne ko naam mun ne ma président 48 heures ngi nii gisuma ko. waali dafa dëddu àdduna ba noppi boole ci nag fi mu ne nii may waxee yow exclusivité bi ba lay jox waali réer na. non mais bu bàyyee way lan lay def. parce que waali mënul du mécanicien du tôlier du électricien xanaa kon day jaay ay kaamil. kenn xamul ndax mi ngi Canada kenn xamul ndax mi ngi France kenn xamul nax mi ngi Amérique. Youssou Dieng la àndal moo xam fa mu nekk ci homme d'état la Youssou mooy Ousmane Torot Dieng kuy xaar moom information yi seen. en tant que ministre mënoo jot président est-ce que tam jotul est mi ngi fonctionné ba léegi. Ah, xamul fu ne. ministre boo xamul leader am fu ne. ku la ne waali fii la ne waxul dëgg. yow mii sax xamul fu ne. xaw ngi naan Canada ñii ngi naan Amérique ñii ngi naan Paris waaye waali kenn xamul fu ne moo tax dialogue faw mu am le 8 ma ngeen war a def benn marche le 10. est-ce que euh, marche bi est-ce bu dialogue bi amee marche bi dinaa mati. ah man daal li ma bëgg mooy balaa ñu yegg ci marche ba na kilifa yi toog waxtaan. dialogue faw mu am parce que man li may xeeñ neexul am naa duraa wax ko en tant que fans mu ñu ma mere man kenn gënu maa bëgg waali bu fekkee yàlla bind na nit ku ma gën a bëgg waali yàlla naa ñàkk sama bakkan tey ci fajar amul. kenn gënu ma koo bëgg te bu dee njariñ ak intérêt intérêt bi ma am ci moom nit amu ko ci man waali bis bu bàyyee way damay bay ji Guinée laa jëm bay wala ma dem Mali wala ma dem Ghana lu may defati ci Sénégal bi day wàcc lu may defati ci Sénégal amatuma fi place parce que nag reñe naa doxal sama palmarès ba nekk au sommet ñu tudd président di tudd monsieur le ministre mënatuma wàccaat di doon chef de quartier ba chef de canton ba chef de village. kon man su bàyyee way jafe-jafe yi maa ko njëkk subir kon aw ma intérêt di ko ñaanal mu jaaba bàyyi way te bëgguma mu bàyyi way mais nag am naa droit en tant que fans mboox li may xeeñ li may xeeñ neexul faw dialogue am ñu toog waxtaan. yàlla